mu ne paa bi kii bu nu fekkoon suñuy jamono ay milliardaire la ñuy doon. xam naa ne ñun. Oh. na leen wutal xaalis lii la ma wax. xoolal loolu ak fi nga fi nga indi làmb. waaw waaw après ba xam ne Mor Fadam mi borom xam-xam la borom xam-xam la dëgg la borom xam-xam la woon nee nañu mbëru làmb bu ko neexee bu demee ba sippi mën naa toog doon sëriñ di ñaan. waaw làmb sëriñ la. waaw ah, kay. mbërum moo gis sëriñ laay dëgg la may tegoo la waaw sëriñu tariya waaw waaw didi tari njëkkoon loolu la wax wallaay dëgg la moo tax moor fadam ko fàtte dëgg la mbay ah waaw en général euh, différencier làmb bu njëkk ak làmb tey ak ndaanaanu démb ak ndaanaanu tey parce comme am na chance su nekk ci bi pour que nit ñi xam ne am na lu lu ñu lu ñu maanaam lu ñu jële fee lu nekkoon fee te indiwuñ ko fii am na lu manqué fii lu ñu waroon a demaat jëli fële pour compléter ko fii. Ah, xam nga Léopold Sédar Senghor dafay wax ni. Mhm. le lutteur sénégalais. Mhm. et en même temps lutteur chanteur et poète. Mhm. c'est une discipline qui englobe le sport et la tradition. Léopold Sédar Senghor moo ko wax na dëgg. xam nga bu njëkkoon mbër. poète la daan poète lay doon day bàkku xam nga ni Abdourahmane Ndiaye Falang li muy bàkku boo ko déglu xam nga ni kii xam-xam la maam góor gi Ndiaye ah. ni muy riimee sant yi ñi sant lu ñi sant nangam mu daan leen saar saar saar booyi booyi booyi ah ñi sant Ndiaye a ko loolu loolu poésie la dëgg la mais loolu loolu du n'importe qui moo ko mën mm-hmm. moo tax mu ne poète la danseur la mm-hmm. mbër feccikat la feccikat la ah. mbër sportif la donc mbër traditionnel la encore lamb rek xoolal ministre bi nu dénk sport jeunesse et culture lamb lañ ko dénk dëgg la ah lamb dong lañ ko dénk dëgg la lamb ja jeune yaa nga culture baa nga fa sport baa nga fa dëgg loolu mu yore noonu mën na koo régler ci biir culture bi dëgg la sport surtout culturel mm-hmm. sport boo gis culture la mm-hmm. culturel bu jëkkoon loolu moo amoon dan daan dan daan dan daan bàkku dan daan takk ay sër mhm, dan daan rendi seega waaw dan daan rendi seega mhm. yooyu yëpp dañ ko daan def te léegi yooyu amatul ah, looloo tax làmbu démb ak tey mhm. wute tey jii am na chorégraphie parce que xale yi li ñuy bàkku dinay fecc quand même c'est de laar dëgg la c'est de l'art boo xoolee woykat séeréer bi li muy fe li muy li muy li muy woy c'est de l'art dëgg la ah li nuy woy c'est de l'art wala li xale yi di tëgg ah gis nga Gris Bordeaux mu ah. waa kër bi seng fay dar ko te kat foo ci dem kër ngéwél gu magal la dar wala Balla Gaye buy ñëw ba waaji ngom dal ko ànd ak xale yi Adama Ngom oh. Modou buy ñëw xale ba dal ko mm-hmm. ah ñooñu loolu c'est de bu dee bërub séeréer nag mm-hmm. bu tarax laa yow ba dugg si mm-hmm. lamb lépp culture kon nee nañ ci tëgg gi ñu lay tëggal rek di nga xam kii daan ak kii daan. non wax ak yow parce que des fois dañuy wax ak yow ci tëgg bi. ci tëgg bi yow miy bëre. waaw bi dina wax ak yow tëggkat bi dina nga xam ne tey jii baax na ah, wala tey day wax ak yow wax lan la war a def ak loo war a def. Hmm. loolu lépp ngi ah. ci loolu yëpp ngi ci làmb. làmb dafa bari secret. laay laay laa di jaay. bi sëriñ la. Hmm. mbër dina toll foo xam bu jëlee ñàkk mbë ñàkk géwél bi koy tëggal. waaw diwoo ko. Hmm. gaa laaj lu mu ko takkoon dey daaj day soj. nga ni. géwël bi lay tëggal. waaw yow mbër mi. Mm. nga tëgg ba nga bëree nga jaaxle nga tiit ngay mel ni sa yaram koo fas. Mm. demal ca mbër mi kay tëgg. Mm. nga jël ñaqam def ko nii mu kii nga diw ko si sa yaram. di sama yaram baa ngi daw. la jàpp lu mu jàpp jàppoon day toj. laay la cay géwél mbay. géwél kenn du moom. laay laay lépp mooma juddu ba la boo juddool ba lan lay jox ab géwél mu nàmpal la. Mm-hmm. waaw daan déer ñu bari nga gis fii boo gis ñu da kii comme géwal soow ma soow ma boo demee ci këri cosaan mm-hmm. ku judd ca dëkk ba mm-hmm. kër ngéwal lañ la yóbbu tëral la ca lal ba jox la weenu géwal mu nàppal la ñu door laa yóbbu looloo amoon dama bàyyi suñu was lu daan def lan baax dëgg la mbay lan xamoon lan baax dëgg la mbay lu daan loolu wallaay mbay dëgg la leen xam tey xamuñu ko xamuñu ko woon kii yéen ko yóbbu moo nu ko yóbbu ay mbay kii kii yàq na nii réew ñaar yi yàq ay mbay ñaar yi kii ko kii kii dajale na kii ak leneen ak leneen ak lii kii dajale na téeméer kii seetu la photographe la mm-hmm. caméra lépp la caméra la day filmer mm. lépp ngi ci kii calendrier la calendrier la am na lamp kii lépp ngi ci moo yàq lépp. moo yàq lépp di jaay. moo yàq na diggante yàq sëy yi yàq sëy yi. ñaata sëy yàq xaritoo xaw ma ko bañ. ndax xaritoo yi xaritoo yi. Ah, àndandoo yi jikko yu bon ñi nag ñëw rax ci biir nag. ngay wax ak nit mu filmé la wala ngay wax ak nit mu enregistré la dem yóbbu la. dafa am ku ma déglu barki démb mu ne ñi nga xamante ne bi internet amagul ñoo daan jug sol seen dàll di dem ci kër yi di jaxase. léegi ñooñu dematuñu fenn ci téléphone bi la ñuy yem ba def ko donnante ba ci seenu njaboot parce que c'est le sang am na ñoo xam ne bu ñu xëyee suba mhm. ci téléphone la ñuy yënd ba keroog ñuy tëdd wax dajale fen rambaaj jaxasee nit du fii rek de mhm. ak ñeneen bitim réew bi dëgg la kii toj réew mu toj <laughs> mu toj at laay ci téléphone yàq jikko yi jikko yi yàq ñu bari respecté mm-hmm. tuñu seen i waajur mm-hmm. ndax li ñuy gis ci téléphone mm-hmm. waaw léegi dañuy dem ba dañuy roy tubaab bi dama toog tubaab bi tubaab moom boo toogee moom papaam sax bu waxee bu dul dëgg mu ne ko non waaw am na xale yu nar a jër yooyu laay laay laa mbay te ñun xamuñu loolu xamuñu loolu cee te te ngor waa ndi jaay tubaarkàlla macha allah xam naa ne ñu ngi ci njeexitalu émission bi te faaw ñu bala ñuy dem ci ataaya ji muy jël suñu temps ñu dugg ak yow fu foor ci yow fu riis ci yow foo xam ne soo bëggee xam dëggi-dëggi bekkaay mbaa mbégte bekkaay mbaa sagu bekkaay fa ngay laal fa ngay jëm muy Njaasaan sa diggante ak waa Njaasaan du man dama ko fi fekk man sama maam Bakar Sarr Cheikh al Bekaay lañ ko dund mu sëriñ xanaa xamu ne man sama maam dee woon na avant sama baay di judd. nga ni. laay laay li laa. sama maam bu góor laa la wax. waaw moom laay wax. <laughs> Bakar mu jur debbo. Bakar mu jur debbo. mu jur debbo xam naa ko moo jur. dee na maanaam di. dee na booba amagul soxna dee na. laay laay li laa. ñu jël ko dugal ci wanag yi maam Seydou Ba Kounté jógee Tiwaawan. génnoon bay door a dellu si ñu romb ngéwal ñu leen lu xew fii Njaasaan daa am ngéwal hmm. ñu ah Bakar de fi jóge la mu ne Bakar man sama Bakar ñu ne ko waaw mu ne anamu ñu ne ko mi ngi coono mu ne génn fa ne fa ba ci yàgg Bakar jóg mu jox ko ko demal Tiwaawan jënd li ma poon Bakar romb ëtt bi nit ñi muuru woon ak jooy ñëpp fekk ndaw. laa ilaha illallah. ginnaaw bi lan saa bàyyi judd ñun danoo foor Njaasaan Cheikh Albekaay loon sëlu sëlu maam. bi mu fi jógee jox ko rakkam muy sëñ Abdourahmane Kounta sëñ Abdourahmane photo mu dafa ci biti dinaa leen ko won ngeen photo moo doon ma moo doon sëriñu maami papa Ablaye maam góor mu jur njaga baayu njaga mbay mm-hmm. maam góor moom ak sam papa danoo jógee gàmm mm-hmm. ci booru mbuur mm. ñëw taxaw ci tali une heure et demie ci guddi ci yàgg ñu gis oto bu xamul fu oto bu jógee. Mhm. ñëw yepp leen yóbbu leen. laa ilaaha illallaah. ba nu yeewoo. Mhm. kan tegoon ne moo leen yóbbu ndekete kooku mosu leen gis. laa moom ne ko yokk jërëjëf bi nga nu yóbbu mu ne fu mu leen yóbbu. mu ne yaa nu jëlee bërëb sàngam yóbbu nu bërëb sàngam mu ne leen du man de. ko la. laay laay laay te loolu dal na leen ñaari yoon. ñaari yoon gi Moussa Diakhaté moo jógee Ndiassane. Mm. ak 2 heures du matin muy taw. Baye Sid Lamine yeewi ko mu génn rek taw ba soob. te mënatul wéññeeku duggaat ci kër gi. ndax xaw naa sori yeewi oh, nañ ko ba pare. mu dem ba ca tali ba taxaw fa ndox may sotteeku ci kawam. lëndëm këris. benn jib jóge na la jàdde Tiwaawan di ñëw muy mu tubaab. muy tubaab ba koy am embauché di directeur am ca Sococim. Hmm. mu dem ba jub Sococim mu wiire yóbbu ko bu buntu këram mu koy xool ba mu dugg biir Sococim ñu teg ci ñaari fan mu ñëw dajewaat moom Georges merci ah pour l'autre jour mu ne ko l'autre jour quoi ko mu ne ko non c'est mu ne ko léegi c'est pas moi. cey mag je viens d'arriver de Paris là hier nuit tu me dis que a quatre jours cinq jours kooku kan la kan la mbay bay Sidi la Baye Sidi la waay laay bu nag ba kaay Sidi mi ci càlle ñun Njaasaan la mu xam fa la ñu fa la sunu baay juddoo dëgg la mbay ca lan nu dem fenn dëgg la Bécaye laa tudd. dëgg la. <laughs> am Bécaye fu mu jëm. wallaay xaw ma ko mbay. fu dul Ndiassane. wallaay mbay xaw ma ko. xanaa Ndiassane dong nag bu ma demee Touba dañ bëgg. dañ laa bëgg. ndax Tiwaawan ndax ndax ndax Ndiassane. wallaay ndax Ndiassane gi. sëñ Touba ku mu bëgg Cheikh Abdou Khadir Jilaani. wallaay dëgg la moom moom rek la tuddee doom ginnaaw yenent bi. Eh, Cheikh Saad bu yaa ngi dégg. Cheikh Mbaye. Cheikh Saad bu la tudd. wallaay wallaay xam moom xam na. caméraman bi sëriñ Touba. Hmm? Seex Abdu Xaadir la tudde la tudde doom ginnaaw yonent bi ñii jëpp ay Mamadou Fallilou sëñ Mamadou mm. mm. mm. lu tax xam te ñii nag ay doon ay Abdou Xaadir bàyyi loolu la xam moo tax ñun ñun seexal bu naama mi tax ñu doonee xaadir ma nga dàq bu gàmmu Njaasaan jotee bernde yi ngay jël di ko def fii ci sa oto di ko yóbbu Njaasaan at mu jot nga di ko def ci fa gàmmoo at mu jot mu yomb ma damaa yomb di <laughs> bu ma yombul woon ko fa def su yóbbu mën a Njaasaan gépp ñu ci bari ñoo xamante ne bi gàmmu Njaasaan bu ñu toggee ndawal këram lañ koy jële ji ngay gis ko jógee këram yore mbuusu yu jaune yu cent franc yi yor ci quatre wala nga yor ci lu bare bari mhm. man nag nee naa ko man soxla moom mbuus man déwén nag lay am ndeysaan mag nga may jox. incha allah bu soobee yàlla incha allah nijaay loolu Cheikh Boula. Cheikh Boula kenn du moom. moo yombal yooyu yëpp nag. waaw hmm. yow ki la ni ki am bisam. Hmm. nga war caa ñëw mu yombalal la la. mu yombalal la lépp. doo sant loolu la ñun loolu la sunu kër gi ay si di Maxtaar FM sëñ Abdourahmane seexal bekkaay. bekkaay seexal nañ ko. non Bécaye nag seexal a gun ko dama bëggoon. waaw lu tax nijaay nag. seex na a nga ñun nag xam nga ñun waayu kii la ñu hmm. daal. waaw nijaay mais réew mi yëpp pour ñoom dañ la seexal hmm. la mais seexal bi nag dama bëggoon a xaar rek tuuti nag seexal daal dis nag man ñu ngi bàyyi mu doon taalibi rek. nijaay teñ naa se nangu rek xam nga ñun ci waa kër ñu ngi jokkoo ci waa kër sëñ Abdourahmane Kunta. Kunta waaw sëñ Amu Kunta mooy sunu xalifa actuellement. Hmm, ma nga ci Ndiassane. doomu sëñ Abdourahmane noona lan ci bokke ndeysaan lu nuy ñaan mm-hmm. la ko waxee léegi mm-hmm. këru diine yëpp mm-hmm. fu ma ci dem da nga naan fii la dëkk fii la dëkk dëgg la Tuubaa waa kër Sëñ Fallu dañ maa bëgg ndeysaan waaw sama papa sëñ Abdou Lahad Mbacke moom maam Fatim Mbacke kooku sama la mu sëñ Abdou Abdou Abdou Lahad ba <laughs> sa waay sa xarit sa lépp man sama baay waaw macha allah yére yu bëri yu may sol moom ko jox moo tax ngay niitaat di xool ndax ci la bokk waaw xool sax est-ce que ndax ci la bokk gis naa ni nga ko <laughs> dafa baax. ndeysaan ndeysaan. ndeysaan xaw ma ko mbay. ñu ko mbay par na ñoo xamante ni mhm. baax par force. mooy mhm, mhm, am dëgg la mbay. na yar bu ñu am. wallaay mbay. par la force la. Mm-hmm. boo ko defaree da ngay tegg yoon da ngay tegg lu li gars yi def cim tàgg bu naawul. jaaxle bokkam waaw da ngay judd fu baax. sa complicité ak Modou Mbaye parce que ñu ngi ci sa doom la. mais gis nañ seen complicité. waaw xam nga c'est-à-dire. Mm-hmm. dañ daan papa ma ne ko eh. Mm. <laughs> <laughs> moo tax âge la ba. âge la la waaw âge rek lay wax. âge waaw âge rek waaw. papa papa amul télé. ndeysaan même paa bu mag bi ngay euh, interview mu doon paa. Mm. mais du paa. du paa foofu plateau bi paa plateau bi paa mu fi. tura fi am tura fi am ndeysaan. waaw bu dee nag nga ne ko monsieur. monsieur bu dee ci wax monsieur nangam. monsieur nangam muy respect. bu dee muy respect bu dee ci mm. olof nga ne ko waa sëñ bi nangam. sëñ bi nangam waaye alaaji nangam. Mm-hmm. waaye papa nangam amu ci. Mm-hmm. amu ci. loolu daal. Mm. ngoy Moodu Moodu da di Moodu damaa dem di reporter combat booy ñaar. Mm-hmm. brise de mer. ndeysaan. nekkate mi ngi sama ginnaaw li may wax yëpp mu doon koy dégg. ma reporté ba pare ñu ñëw toog fii di seetaan Bantamba. Hmm. ca mardi ba. ak ah, combat bi commencé rek. ma ma dégg ko moom bokkuma fii de ma dégg ko moom ci mu nekk mi ngi dend ak man naan song na ko jël na ko pat na ko daanu na daanoogul du kaa rappi la du kaa rappi li may wax yëpp ci télé bi moom mi ngi koy wax ma ne ah. fi ngeen toog nii. fi mu toog nii ci salle bi. laay laay li laa. faqat na ko daan na ko daanagu na taxaw dégg yooyu nu may waxe noonu mu doon koy wax ci sama ginnaaw maa ngi koy dégg ci sama mu mel ni nga ni teg mel ni yow yaa fa ne waaw ma ni waaw mais kii kon naka la mën a taman fàtte naa li ma wax kat <laughs> reportage direct nga waxal ci làmb ji yaa ko def <laughs> waaw fàtte daa ko def dëgg la <laughs> ma ma ma gestu xool ko ni ko yow noo xamee lii yow kon reportage nga bëgg mu ne ma waaw oh quelque temps buggaan woo ma ma jox ko mu yóbbu ko seete te te te te. mu yóbbu ko te mu doon reporter. wallaay ndeysaan. bu am yar nag. waaw ma ba libéré ko nag. teel ko libéré. waaw du ko yedd du ma ko wax dara ñu bëri danañ ma mere naan ma dee ko yedd. ndeysaan waaw li ma de. ndeysaan bëriwul de li ma ko naan boo demee nga wax ma non munoo ko koo wax. Mhm. boo ko ko waxee du ko wax. du ko wax non. da benn jour dafay mi bi voilà bi mi doo commencé seen TV dañ leen mhm. premier plateau bi mu war a def. Mhm. ma wax ko boo demee na nga sérieux na nga def n na nga mu ñëw toog di seetaan Pape Cheikh di animé ba ni voilà ki yor làmb ji ñëw na muy Modou Mbaye. jëlal leen ma ko mu nga ne leen ma Modou leen ma lii. <laughs> ma ko ma ne ko ma gis ni ma gis Pape Cheikh Pape Cheikh di ko interroger ba ci yàggat. Uh-huh. moom mu dugg si rek mu fekk Pape Cheikh fi mu taxaw rek mu yenu ko. fop dafa Pape Cheikh yenu rek mu ko. <laughs> ma ne kon man kii man moom duñu li ma war a wax naa ko wax mais moom li mu war a wax naa ko bàyyi. naa ko bàyyi mu wax ko keroog laa ko gëj a wax del wax lii. ndeysaan ndeysaan ngi def yëfam. Mhm. et bi ma ko joxee émission bi tamit mhm. mi ngi koy gérer. mi koy gérer boobu ba léegi mi koy gérer. ndeysaan ah, te dëgg la mhm. tey tey jii nag télé yi danoo bari. danoo bari nekk di wane. ku ne di wane. boo góor woon fi lan lay baax. dëgg la mais am na émission boo xam ne liggéey nañ ko liggéey boo xam ne ci góorgóorlu. dëgg la jàmm rek la ci am. bu góorgóorloo jàmm la ci am moom rek nga am ci doom joo xam ne fekk si na la ci métier mi. waaw ñi si des ay technicien la kenn ki son lay def. comme kan Babacar Babacar. son lay def Pa Modou c'est réalisateur mooy directeur technique bu télévision bi. bu Bantamba. Bantamba macha allah moo ko macha allah waaw. maam na koy moom élève la. maam Mbaye. maam Mbaye waaw moom élève la élève la macha allah. dugal dugal dugaluma ko ci. na <laughs> ngeen xam ne kër gi nag ñaari mbaayaa nga fi. waaw mbaaye mi ñu duppee yaayam muy soxnaam ak mbaaye mi mu duppee yaayam muy muy doomam ji mu yor tubaarkàlla macha allah. Mm-hmm, mm-hmm. mm-hmm. ah. Ndijaay Pambay nee na waaw waaw wax na dëgg. jëmm la ñuy seexal wala jikko. waaw waaw waaw jikko la ñuy seexal. waaw. xam naa mu bëgg maa wax ne sa jikko jar naa seexal. ndeysaan waaye comme que ñun danoo nangoo dooni taalibe. Ah, ma man na ma bàyyi rek ma doonu ko nga doon taalibe rek ba ci kanam ndeysaan jikko la ñuy seexal parce que cheikh ñuy seexal tamit jikkoom la ñuy xool mu méngoo ak jikkoy cheikh ñu ne kon seexal waaw jikko ji lii mu ak jikkoy cheikh waaw leneen li li waaw wax na dëgg waaw jikko la mhm. ay comme que ñun dañoo bëgg a dooni taalibe moom sëñ bi bàyyi ñu allah mu bàyyi ñu doon taalibe ndi jaay émission nag euh, tu dafa baaxoo di teg ataaya ataaya ji nag lii warga la warga wi nag bëgg na ñu jaay bétail mu am tur te bëgg nañ nga jàpp ci tur wi ba warga wi am tur dina am tur incha allah dinaa ci jàpp mu am tur bu soobee yàlla warga wi ah. léegi dina am lu mu tudd. incha allah mbay bu neexee yàlla. incha allah li ngay def dafa am solo. dafa am solo kon nag man kaas bi maa ngi la koy mayal Maymuna mi ma bëgg nga wax sànni ci moom ay kaddu may Ndour a Maymuna Ndour Faye man moom laa jox kaas bi. Maymuna jox la ko macha allah. waaw balaa nag maa ngi koy naanal Papis Mbaye Adama ak moom may ko Pambay mii. ak ñaari caméraman yi Cheikh na Cheikh Sadou ak Faly. balaa maa wax ci Maimouna Ndour Faye mm-hmm. ma encouragé la. Mm-hmm. déjà ma encouragé la ndaxte nii la pour ki nga xam nga mm-hmm. musuma ah, parce que def nga ngoy. waaw def naa ngoy de. <laughs> waaw <laughs> musuma gis émission bu mel nii. ndeysaan. yaa ko créé yaa ko moom. ndeysaan. jërëjëf tax ñu lay encouragé. jërëjëf Mbaye. nii nga koy defee daal yàlla na ko yàlla barkeel. ay ndijaay te yàlla dina ko barke amiin bay. di def lu baax di am lu bon ku la dëgg. dëgg la amul fenn bi àdduna àdduna tey jii. dëgg la di da doon def lu baax. Hmm. ba lii fekk ko ci. barke dina ñëw. amiin bay. daa yoru ba dof. Hmm. da yoru ba mel nii. Hmm. amul fenn. dëgg la. amul fenn. ndeysaan. ma la ciy gërëm. ndeysaan jërëjëf Mbaye. mu ñun ay géwël la. dëgg la Mbaye. nangu ko nangu ko bëgg ko fier ci hmm. lu baax rek la ñuy wax wallaay mbay ñun wax lu bon déedéet ñun duñ wax lu bon duñu wax ku bon dëgg la mbay duñu waxal ku bon déedéet buñ lay waxal da baax da ngaa baax ku baax la ñuy waxal wallaay mbay baax la ñuy waxal it dëgg la mbay oh ci lu baax la ñuy ne ñun ay géwël la ci lu baax la ñuy ndaxte noonu la sunuy maam deloon maam Serigne Touba boo fa demee ba muy doo a feeñ géwél yee ko topp dëgg la boo demee kër Alaaji Maalik gis nga kër ña ko topp maa la wax lii Maodo Mbaye Gawl Maodo Mbaye Maodo Maodo Mbaye Maodo Age Mansour boo demee waa kër wallaay wallaay waa kër maam Daaw Góor dëgg la ñoo ñoo ko ñoo ñoo ko siiwal mm, mm, mm, tey maam Fama wallaay bàyyi moo daan jot li sëñ Abdou Aziz mais ñooñu ñooñu ñooñu ay géwal lañu. Mm-hmm. Cheikh bu Kunta bi mu ñëwee Cheikh Albunaama Kunta. Cheikh Albunaama Mbaye Cheikh Albunaama Mbaye sama maam. ak ma xureja ñoo ñooñu la àndal. ñooñoo lay siiwal di. amul benn sëriñ fii boo xam ne mën nga fee siiwal. mën nga fee sa bopp ñooñoo ñëw ni waa ji ñëw na waa jaa ngi. ba nga siiw ba mel ne ni. Mm-hmm. ñun loolu xam. dëgg la. boo dee homme politique ñu topp sa a wax dëgg ñi gëmul géwél ñu ko gëmul maanaam yaakaar ni géwél ay nax la wala. bariwul nag ankay am na waaw mais ñoo daw ñoo ko tey dañuy dof dof dañuy dof danoo nay rek waaw ñoo la gën a xam ni géwél am na déedéet dal ñi géer géer ñi géwél géwél lu léegi complexe la ci biir complexe la ñun kenn wàllu géwél yëpp léegi ay géer géer la nu ah. mais ñi ngi topp ci ngénte yi di ci oto yi ñooñu du ñuy géwél de wallaay du ñu ay géwél ñuy géwél de wax na ko de dóor du yëfi géwél ci dóor du géwél génnewu ko géer ko génne géwal du géwal du dóor ñiy topp ci oto yi demal nga demal ca dëj ba ca ngénte la kilifa ñëw nga daw topp ko dañ topp ci oto bay nga nga du géwal déedéet géwal géwal dignité la am géwal lu baax lay def dangay ngay jóge fële ca àll ba kenn xamul xamoo fi sax amoo fi maam ndakaaru gépp topp ci oto bu ndaw xam nga yow mii ngoy doo topp ci oto maar di imsi xam nga ne man ñu ñemewu wallaay mbay yàlla tay ah Modou Mbaye mii li muy doon seex Saad bu mii rek li muy doon doon doon géwél dañuy tàcc da ngay toog ñu yóotu la. darka yéen a la kaay toog fii waxal nu nangam. defal nu mm. nangam.